wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen mbokkam daara yi Cissé mooy am mbégte di del si di leen nuyu te di leen ziyaara ci seen jotaay bi ñu tuddee majaalisul fiq mooy jotaay la boo xam ne da ci jàngalanteeg yeen lu jëm ci wàllu fiq waaye ñu tënkoon koog yéen ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu dayo woon na nag ñu jëloon nag yéen ci téere bi lu tolloog fukki dars tey nag ñu war a ñëw ak yéen suñu fukkeel dars ak benn biñ fiy mujj borom téere bi mu ngi doon jàngal cangaayal farata yan ñoo koy waral mu jàngale ñett lu mel ni aljanaaba alxaydoog nifaas ginnaaw gi tamit jàngal nañu koo xam ne so xëy na bëgg a sol fekk ci lu ci taq amaana sobe la man yi wala yu ni mel nu ko war a taxawoo yooyu yëpp borom téere bi jàngaloon nañu ko tey nag sangu farata moom mu doon jàngal lu koy waral moom lañu bëgg a jàngal tey moom jëm jëmmi sangu farata lan moo ciy farata lan moo ciy na nan lañ bëgg ñu defee ko boo ñu toppee rek borom téere bi dañu jàngal niñ ko war a defee mooy fi mu waxee ne faraidil xusli ba bunt ba jeex mu ne faslun li ak tàqale la mu ne faraidul xusli farataay sangoo mu ne bunt la boo xam ne dafay jàngale lu jëm ci wàllu farataay sangoo mu ne bi ci njëkk moom farata yi an niyatu mooy yéene bi njëkk ci farata yi faratay sangu farata an niyatu mooy yéene comme ni ñu ko miinee woon ci mboole mi jaamu yàlla yi boo ciy dugg rek da ngay fekk ne yéene farata lay doon comme xadis ba Seydina Omar jëlee woon ci yonent yàlla Muhammad muy wax ne innamal a'maalu binniyaat wa innama kulli imrin ma nawaa ba xadis ba jeex kon bi ci njëkk an niyat mooy yéene inda shuruu ca ba ngay commencé waaye naka noonu wal fawru gaaw nga sangu li ngay sangu génn fa jóge fa gaaw farata la waaye naka noonu waddal ku ak bomb muy ragg ah, loolu tamit ci farata yi la bokk maanaam nga bomb fa ngay sotti ndox bi day ànd ak sa loxo nga di ko bomb boo demee ci borom ibnu asir dalay wax ne sax bu dee ki nga xam ne amaana loxoom jotu digg ginnaawam ah bu dee am na soxna bu ko neexee mu woo ko mu defal ko ko bu dee jigéen gi tamit bu dee am na borom kër bu ko neexee mu woo ko mu defal ko mu bombal ko fa mu jotut waaye bu dee koo xam ne amagul dara nag moom ah mën naa wut lu mel ni ñàmpe wala mu wut ab morsa tooyal ka ba mu tooy bombee ko digg ginnaaw nga fi nga xam ne loxoom jotu ko kon bomb bi farata waaye naka noonu wala amumu ak matala yaram yaram yépp tooy loolu tamit ci faratay la bokkoo kon bul sangu daal benn espace di ñàkk tooy bu ko def waaye naka noonu bomb bi tamit nañ ci def yitte ba fexe ñi bomb yaram yépp foo mënta jot sa loxo leer na sa loxo mënu faa jot nga wut lu la fa lu ko lu la moo xam morse la wala xam ñàmpe yi ñu sangoo léegi nga tooyal ko bombee ko yaa xam daal noo ko mën a wut loo ko mën a bombee rek nga def ko mais bomb bi daal farata la bu ñu ko di sàgganee kon loolu mooy farata yi muy ñeent bi ci njëkk mooy yéene bu ñaareel bi mooy gaaw ñetteel bi mooy bomb waaye ñeenteel bi mooy nga matale yaram yépp tooy kon ñii bu ci manqué nag bàyyil xel ne kon sa sang moo ah, baaxut kon mi ngi noonu farata pare na ci farata yi mi ngi bëgg a ñëw ak ñun ci sunna yi mu ne wa sunnanuhu sunnay sangu farata mu ne xaslul yeday nii mooy raxas ñaari loxo ilal kuwaay ni ba ci tikku jare yi kal wudu yi comme ni nga ko defee ci njàpp mu ne sunna yi daal mooy nga raxas sa ñaari loxo ba ci tikku jaree mooy fii ñuy takk montor ak ah, lu mel ni ay jaraak yi ni mel nee na raxas bi ngay raxas ba foofu ne lool sunna la comme ni nga ko defee ci jàpp rek waaye naka noonu mu ne wal mad madatu galax ndiku la waaye naka noonu wal istinsaaqu sarax loolu tamit sunna la waaye naka noonu wal istinsaaru fiiru loolu tamit sunna la waaye naka noonu waxas lu simaaxil isneen raxas ñaari bën bëni noppi loolu tamit ci sunna yi la bokk waxee mu ne moom as suqbatu muy bën bën ad daaxili bay aji dugg fii ci bopp mooy bën bën bi nga xam ne daal moo dugg ba ci bopp bi nee na nga raxas ko loolu tamit ci sunna yi la bokk mu ne wa amma safxatul usnayni ndaal ñaari ndabi nopp yi mooy nopp bi kubéer bi ngay seen ci kaw mu ne fa yajibu dafay war xaslu nga raxas bitti gi wa baatiniha ak biir gi ndabal nopp li muy kubéer bi li ngay seen noonu ci nopp bi ci kaw nee loolu dafa war nga raxas biir gi ak bitti gi ba tooy nee loolu tamit nga bàyyi ci xel kon loolu mooy sunna yi pare na ci sunna yi mi ngi bëgg ñëw ak ñun tey ci ngëneel yi mooy li nga xam ne moom la islaam bëgg ñu defee ko ko ci façon toftale bi loolu la bëgg a jàngale ni ñu koy defee mu ne wa fadailuhu ngëneeli sangu mu ne albidaayatu mooy tàmbalee bi xasli najaasati ci raxas sobe si mu ne liy ngëneel daal boo ñëwee li nga war a njëkk a def mooy raxas sobe si mooy fan li ko daggee sa jimbax ba ci sa bëti om nga sang ko ba mu set ci mu leer na léegi sobe di setut sa yaram wi boo paree ci loo mën suma zakar yi toppata zakara fa yéen wi nga yéenee indahu fa moom fa ngay raxasee say awra nee na fa ngay dugalee sa yéene soo paree ci lool raxas nga awra yi raxas nga li daggee jimbax bi ba ci bëti óom yi léegi wóor na nag sobe si nekkoon sa yaram dañ na léegi li ci des mu ne boo paree nag summa aada il wudu i marlatan maratan boobaa nga def njàppal benn benn cër bu nekk nga raxas ko benn yoon muy maratan maratan boo paree ci loolu ba njàpp li yegg mu ne summa ala jasadihi topp li gën a kawe ci yaram yi mooy ci bopp bi fa ngay fa ngay jël xaaj ko jëmale suuf waaye nekk noonu mu ne wa tasliisu xasdil asi nga ñetteel raxas bopp bi booy def njàppal benn benn li daal ba yegg ci bopp bi nag bopp bi tey doo ko masaa bopp bi tey boo ci yegsee doo ko masaa bu dee séew bi la da ngay dugal sa ñaari loxo yi ba ci biir séew bi ba tooy nga seppewaat ko te doo tànk ndox soo paree nga xajji sa bopp bi soo ko xajjee ba pare nag ci ngay jooru jël sa ñaar loxo yi nga taqale ko képp baaraam yi duy ci ndox ba mu fees dell nga sotti ko ci bopp bi def ko ba muy ñetti yoon bës ko ci pour ter der bopp bi mën a tooy ndax dafay nekk ci suuf bépp suuf karaw bu nekk rek jana ba dafay nekk te bu ter ah, der bi dafa war a tooy kon ñetti loxo yi da ñaari loxo da nga koy tànk ba mu fees dell ak ndox sotti ko ci bës ko ci pour mu dugg ci suuf der bi def ko ba muy ñetti yoon kon nga dégg ci ki nga xam ne nag moom amaana mi ngi teg garafaas wala mees ndax moom bu defee loolu dana tooy te bu tooy it sangu ma baaxut boobaa kon moom mook jana ba ñooy dëkk te bokk na ci yi war faral di sonal jigéen ñi bopp yi métti fu toll seen bopp yi di métti amaana bokk na ci cause yi koy waral mooy bu ñuy sangu farata seen bopp ya du tooy wala def nañ ci létt yoo xam ne bëgguñ mu tooy ak yu ni mel fekk doolu loolu tamit mu ñàkk tooy te jëral la bopp bi métti bu du dakk ba mukk loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax def ci ittee muy tooy ndax der bopp bi dafa war a tooy bu dee da nga léttu woon jërut firi waaye da ci bës daal mu tooy waaye ku mel ni gerefaas ak mees moom boo ko defee bopp ba du mën a tooy moo tax loolu moo ci moo koy jagal kon naka mu ne boo paree ci loolu nag def nga ba bopp bi tooy léegi li ci des mu ne wa taqdimu shaqi jasadil aymani nga jiital xaaju yaramu ndeyjoor bi maanaam nga xaaj yaram wi jël côté ndeyjoor bi sangu ko ba ci suuf côté ndeyjoor bi ba mu pare ba ba ci suuf boo paree nga def ko càmmooy bi boobaa sangu ma man na boo paree mu ne nag wa taqalilul maa i alal aada yi nga néewal ndox mi tamit ci kaw yi kon daal bu ñu ko doon tënkal ci gàttal moom sangu farata ginnaaw boo yore ceeb sewo ñëw ci douche bi boo ñëwee teg sewo bi boo ñëwee li nga njëkk def mooy la nga raxas sa loxo yi ba mu set boo paree na nga door a commencé si sa jimbax bi ba ci sa bëti oom nga sang ko kanam ak ginnaaw mu leer na ne bu dee taqoon nga sobee foofu la war na mën a taq sobe si dañ ne ba ba set bu sobe si dañee nag looy def nga daal def njàppal benn benn njàpp lépp benn benn nga koy def di raxas benn benn boo yegsee ba ci bopp nag fa lay changé bopp nee naa la tey doo ko masaa dangay ngay njëkk a dugal sa loxo bi ci séew bi nga xajji bopp bi boo ko xajjee ba pare ci ngay door a dugalaat sa loxo yi tànk ko ba mu fees sotti ko ci bopp bi def ko ba muy ñetti yoon pour bës ci pour mu tooy bu ñett nag nga raxas sa tànk bu la neexee tamit nga mujjee euh, waaye bu la neexee daal nga mottali ko raxas sa tànk rek njàppali pare soo paree na nga xaaj sa yaram yi ci kaw ci bopp bi côté ndayjoor bi sang ko ba ci suuf soo paree nga def ko côté càmmooy bi boo ko defee loolu sang moom euh, pare na moom loo loo ci defat yaa xam waaye boo ko defee moom sangum farata ah ni ko sunna jàngalee def nga ko bu la neexee la des sa ndox ma nga sottee koo ko yaa xam looy def daal mais nii daal la ko islaam jàngalee boo ko defee ba pare daal nag léegi yi des moom ndox ma des ak yi desut moom loolu sa affaire bopp la bul neexee nga xëppoo wala neexee nga yem fa kon mi ngi noonu daal loolu mooy sangu farata doomu aadama léegi-léegi nag lu mu dugg lu gën a bëri ak manquem dajay feeñ ndax dafa manqué waaye kii sangu nag ba njuumte dikkal ko wala fàtte dikkal ko nu mu ko waral defaree loolu la ñu borom téere bëgg a mottali tamit ci kanam mu ne waman nasiya képp ku fàtte lu ma atan ab déenéer muy ab espace mu fàtte ko ci sangoom aw aduwan wala ab cër la fàtte ba tooyut min xaslihi ci sa ngoom ba muy sang mu fàtte ko mu ne baa dara na gaaw ilaa xaslihi jëm ci raxas ko xiina tazakkurihi jamono bi mu ko fàttali ko boo fàttali ko ne man de bi may sangu daa mel ni sama fii tooyutoon wala sama mbagg mi tooyutoon wala sama tànk bi fii tooyutoon nee na boo ko fàttali ko dawal gaaw nga dem defi ko mu ne walaw ba'da shahrin donte ginnaaw weer la noonu dangaa toog weer sa xel door koo daj nee jàpp li bàyyi woon li nga nekkoon bàyyi ko gaaw nga daw dem defi ko dem raxas foofu nga xam ne da nga ko fàttoon donte weer la la wax wala donte semaine la wala donte ñaari fan la boo ko defee pare looy war mu ne wa aadama salla qablahu li nga julli woon yépp nag ci diggante bi nga bi nga fàttee bi ak fi nga fàttale ko dangay dem nga bamtuwaat ko ko yéexee banda zikrihi batla rusluhu bu dee da nga fàttali ko nag ne man de bi may sangu keroog sama loxo bi tooyutoon wala mbagg mi tooyutoon nga ne nga yéexee ko nga ne xaaram yeggal lii wala nga ne xaaram si daan filmé ba mu jeex dool koo yàqu moo tax mu ne batalat xusluhu waaye nag wa in kaana bu dee la nga fàtte woon nag dafa nekk fil aada il wudu yi ci cëriñ njàpp yi wa saadafahu xuslul wudu i ajza u mu ne bu dee cër bi nga fàtte woon dafa nekk ci cëriñ njàpp yi comme lu mel ne loxo raxas loxo ba ci conc mu nga fàtte woon waaye yàlla dogal bi ngay jàpp nga raxasaale ko nee na lool ah jégal na la ko lu boobaa loolu dana ko mën a remplacer bu dee li nga fàtte woon daal ci ko l mel ne xar kanam la bi ngay nga yóbbaale ko nee mel noonu bu dee yu mel noonu daal fu la tombee nee na boobaa moom ah, jégal nañ la ko xam naa ñu ngi taxaw foofu ñu jëm cee jaaraat ci anam bu gaaw ci nga xam ne mi ngi topp baat yi mu ne faraidul xusli farataay sangoo mu ne an niyatu mooy yéene bi ci njëkk ànd ashuru'i ca ba ngay commencé waaye naka noonu wal fawru gaaw ci farata yi la bokk waaye naka noonu waddalku bomb mooy ragg loolu ci farata yi la bokk waaye naka noonu wal umumu ak matala yaram yépp tooy ci farata yi la bokk waaye naka noonu mu ne wa sunnanuhu sunnay sango xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal ku'ayni ba ci kal wudooyu comme kiy njàpp waaye naka noonu wal mat madatu galax ndiku sunna la waaye wal istinsaaqu salax ndiku sunna la waaye naka noonu wal istinsaaru fiiru sunna la waaye waxas lu simaaxil usnayn raxas ñaari bën bëni noppi en ah, sunna la waxiya moom as suqubate mooy bën bën ak daaxilu te bi aju dugg fii ci bopp mu ne wa amma safxatul usnayn daal ñaari ndabi noppi mu ne fa yajibu dafay war xaslu zahiri zahiriha nga raxas en ah, biti gi wa ak biir gi mu ne wa fadaa iluhu nga ne li sangu kon xam naa kon ñu ngi ñëw doy loolu rek ñekkoon ak yéen tey ci sangu farata mi ngi noonu darsa baa ngi noonu lu ci leer yàlla la lu ci lëndam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaxa la in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu